ne maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ne ñi fi teew ak ñi fi teewut di gërëm mbokk yi di gërëm xarit yi di gërëm am di jàmm yi ne ku amul yéene teew fi ak ku amul woon yéene teew fi sax ca bëggoon fee teew ca am ndog ca am ndog maa ngi lay gërëm ne innamal ahmaalu bi niyaati ne maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ne wax ji nag du bari de nee damaa waxoon cinq minutes ne léegi deux minutes lay doon day gàtt lool ma tënk ko rek ndax toogaay bi yàgg na ndax bi yàgg na yitte yi bari na yitte yi bari na ca jataayit beet mu ngi bëgg a tànk te war na noo yeewi nit ñëpp. sant leen bu baax sant leen bu baax. ñaanal leen ñaanal leen. ku dellu ci yitte kenn ku nekk dellu ci sa yitte. fi commencé nag mooy. ne fi may commencé samay kàddu mooy. sant sama waajur wu jigéen wi toog sant sama waajur jigéen wii toog. yéen li ma def ngeen mën a gis moom ngeen xool. ne man li ma def rek ngeen moom ngeen mën a gis moom ngeen xool. waaye moom li mu def xëy na. waaye moom xëy na li mu def. mënu leen koo gis. mënu leen koo gis. mënu leen koo xool. mënu leen moo tax waxu leen ko. moo tax damay fay bor bi rek. damay jéem a fay bor bi rek nee na. waaye defalu ma ko dara loo xamante ni. waaye defalu ma ko dara loo xamante ni. da koo jomb. da koo jomb. wala dafa ëpp ci moom. ndax. ndax. alxuraan dafa wax ni. alxuraan dafa wax ni. yaa ayyuha allazina amanu. kutiwu laaha. atiihu laaha. wa atiihu rasuulu. wa atiihu rasuulu. la ci teg. neen lu ci teg. wa ulil amrihi aaya la de bul xóot rek yow bul xóot rek man boo yemee ci kaw rek dinaa ko mën a wax yow bul xóot man kay damay wax lu leer bul xóot rek yow ginnaaw bu ngeen toppee yàlla ak yonent ne ginnaaw bu ngeen bi ba pare waaw kay teg leen ci seeni waajur teg leen ci seeni waajur keneen kuy ñëw nag doog a ñëw keneen kuy ñëw nag soog a ñëw waaye waajur yi moom waaye waajur yi moom moom lañ ci moom rek lan ci teg noonu yéen waykat yi yéen a wax naan. nee ñun waykat yi ñoo wax ni. doom yaa ngi rawantee ci waajur yi. doom yi ñu ngi rawantee ci waajur yi. yéen a koy wax. nee ñun ñii ñoo koy waaw. noonu la demee. nee kon noonu rek la demee. maa ngi koy sant bu baax. nee ajaratu soxna Guèye mi maa ngi koy sant bu baax. gërëm de. kii nee na maa ngi koy gërëm bu baax. man xam naa ni. man xam naa ni moom mii. defal na ma dara de. defal na ma dara de barki sëñ Touba. ñu bari dan naan. nee ñu bari dan naan. damaa amub sëriñ. damaa amub sëriñ. yow da xam nga man mii xam naa ci dara waaw. Ah? waaw bu wér. benn sëriñ laa nee man benn sëriñ laa am. kenn may ñaanal kenn may ñaanal. muy moom mii muy moom mii. wax na dëgg de. dew ma fenn dew ma fenn. sanguwu ma fenn sanguwu ma fenn. takkul ma dara. li coow li bari bari. dama ciy génn dama ciy génn. ndax xam naa fi ma wéeru fu mu doon. yàlla dafa yàlla moom ñaan yi la mënta delloo. nee yàlla ñetti ñaan yii la mënta delloo. la mënta naw delloo. ne la mënta. delloo delloo. muy waajur bu ñaanal doomam. muy waajur wu ñaanal doomam. wuy ñaanal waajur wuy ñaanal doomam. yàlla nee na su ma ko mënoon delloo ne yàlla nee na su ma ko mënoon a delloo rus naa ko rus naa ak nangu ñaanu koo gëmul. ne ak nangu ñaanu ku gëmul yàlla. non ku gëmul ki lay ñaanal ku lay ñaanal. mun naa ñaanal ba mu nangu. ne mun naa ñaanal ba mu nangu. ba mu nangu. waaye nag. waaye nag. ki la ki la tooñ. ki la tooñul ki la tooñul. nga ñaan ko yàlla nga ñaan ko yàlla. mënta nangu mënta nangu. Hmm, nee kon. ku ñemee dañ laa dee waxoon naa ko ñaari nee waxoon naa ko ñaari at ci ginnaaw ku ñemee dañ laa dee. yaa ko jottali woon de. nee man mii maa ko jottali woon dëgg la maa ko jottali woon. Ah? maa ko jottali woon de. nee ku ñemee dan laa dee man mii maa ko jottali woon yaa ko wax. kon nee kon nag. <laughs> laa ilaha illallah nee xaadim nanu fonk waajur dellu fonk waajur yi nee man Cheikh Mbaye Gueye maa la wax loolu man duma jàmbar de man duma jàmbar ñi ma dimbali bëriwul nee ñi ma dimbali bëriwuñu nee bu ameet bëriwul de déedéet xam naa ci dara de ñi ma dimbali nee ñi ma dimbali bëriwul noonu baax na menn mag nee na ma bu la kaf kafe tuuroo ca tëyoo ko nee na ci kàddu yi Ibra la ko dégg mu ne sëriñ benn bu la kafe tuuroo ca tëyoo ko diirub ngay summi mbaxana mi doo fi def lu lay bindal la bàkkaar sëñ Tuubaa ko wax yaa wàkk baal noonu maa ngi ñëw maa ngi ñëw moom dafa bëgg ci kanam tuuti dama bëgg ñu làmbal ma àddee yi Cheikh Rafal ma jox ko yow maa ngi ñëw tuuti mu tëj jataay bi nan déglu Cheikh waaw nee na ñu may ko mu ñëw. dama ni nit maa dimbali Cheikh Mbaye Guèye. nee nit ni maa dimbali Cheikh Mbaye Guèye. néew ma amut. néew waaye yombul de. lu ma am rek. lu ma am rek. samay pexey bopp. samay pexey bopp. ak sama ñaanu waajur. ak sama moo ma ko jox. dama koo natt fu nekk. ndax dama koo natt fu nekk. natt ko fu nekk. gis ko gis ko. metti woon na lool nag. nee metti woon na lool nag. waaw. nekkoon na fa ay xat-xat nekk. nee nekkoon na foo xamee ni ay xat-xati kese fa ne. jaar nañ fu nekk. jaar nañ fu ne. waaye yàlla bu naree defar. waaye yàlla bu naree defar. xëy na day raxas. day raxas. ba mu set ba mu set. bool bi set. ba bool bi set. mu def dara mu soog a def dara. kon noonu la ko jàppee noonu lañ ko jàppe ñun ñii. kon maa ngi sant sama waajur. nee yaa soxna maa ngi lay sant bu baax. amut àpp cant gi. xam nga lan lay bañ a dégg. nee xam nga lan lay bañ a dégg. ak bëggam ak bëggam. ko dégg rek bis bu ma koy dégg rek di ko def. mu ngi nii toog. mu nii toog. dama koy défier. nee dama koy défier. mu ngi nii toog mu ngi nii toog. laaj ko ndax. laaj ko neen ñu laaj ko ba xam. soxlaam soxlaam. mas naa dugg sama nopp. te fajuwul même bu ma ko mënut. nee même bu ma ko mënut. dinaa ko dinaa ko faj. moo ko waxo yaa ma ko waxoon ca dinde yi ni ma soxla su ma man di am su duggee ci nopp Cheikh mbay Guèye bala moo am jàmm daa faju maa ko jottali woon waaye néew ma dama koo yor de néew ma dama koo yor dama koo man de néew ma dama koo man damay sabablu rek waaye damay sabablu dox jëm ca dox jëm ca yàlla ñëw yàlla ñëw noonu rek la foofu rek laa ko jàpp waaye nag waaye nag nu ngeen koy waxatee liw bi liw bi. nee liw bi liw bi ngelaw li. ngelaw li ngelaw li. sama waajur wu góor. nee sama waajuru góor. muy sëriñ ab Guèye. muy Serigne Abdou Guèye. maa ngi koy ñaanal bu baax. nee maa ngi koy ñaanal ca barsàqul Muhammadiya. yàlla yokk ay leeram. yàlla na yàlla yokk ay leeram. ca taas ñu ci barkeem. ndax juddu. ndax juddu. ñu wutal la ndey ju baax. ñu wutal la ndey ju baax. baay moo koy def. baay a koy def. tuddee la ku baax. tuddee la ku baax. bàyyi koy def. jàngal la jublu si daara jàngal la alxuraanul karim bàyyi koy def. nee bàyyi koy def. kon boo sañoon. waaye kon boo sañoon. di nga fekk di nga fekk bàyyi dina fekk loo nee bàyyi boo sañoon. bàyyi dina fekk loo mën nag. soo ko mënta defal lépp it. soo ko mënta defal lépp it. nga ko lu ndaw. nga defal ko la nga yéen defal nee nga defal ko la nga xam ne moom nga yéene ci sa xol ngir defal ko ko. màkk bii ma jox sama yaay. biyee màkk bii ma jox sama yaay. bu fi sama baay nekkoon. néew ma dem de. néew ma sama yaay du dem. dañuy ànd dem. dañuy ànd dem. wala paa bi dem. wala paa bi dem. bu déwénee mu dem. bu déwénee yaa soxna dem. waaye nag bu déwénee. waaye bu déwénee. mën dem. nee man seex Mbaye Guèye mii maay dem. maay dem nag. yooyu <laughs> eh. yooyu yooyu yaa quelque chose. nee déwén. xam nga lu ma fay uti. nee lu ma fay uti màkk man. nee sama papa laay ajali déwén incha allahu rabbi wax nga ma ko ca Ndakaaru de nee bu déwénee bis bi dina amaat bis bi dina amaat bu déwénee man mii lay doon incha allahu rabbi ndax dani bu déwénee dinaa demaat Makka bis bii bu déwénee man Cheikh Mbaye Guèye mii lay doon sama baay laay demal màkk bu déwénee moom lay ajal ne su ma demee aji ba ñëw nag ba pare soo ko dem ngir sama bopp nag ginnaaw ci ponk lislaam yi la bokk waaye daal bu déwén bu ma demee déwén waaye bu déwén bu ma aj ga moom aj ga moom saa bàyyee ko moom am naa ci droit di waaw waaw waaw waaw ndax ki la jàngal ki la jàngal. yar la yar la. génn ci dëkk bi nga dem. génn la ci dëkk bi nga dem. nga wër. génnal dëkk bi nga wër. ku xam sama baay. ku xam sama baay. doo benn baat ci moom budul. doo dégg benn baat ci moom budul. ak a a baax. nit ñaa ngi toog de. nit ñaa ngi toog de. nee ñu bari mat nañ seede ci lii may wax. mosuma dégg ci moom. mosuma dégg ci sama baay. baat bu safaanoo baat bu safaanoo. xam nga lu may dégg ci moom xam nga lu may dégg ci moom lu mu yor lu mu yor joxe ko li may def nii ñu koy wax li may def nii ñu koy wax dama koo donn de nee dama koo donn musul am compte banque moom moom sama baay mësta am compte banque ca man am naa compte banque bu yoroon ay millions nee bu yoroon ay millions ci poosam la koy def di ko joxe ba mu jeex ay waay oo oh. li may wax nag nee li may wax nag mën naa ko wax si mën naa koo wax ci ak ñi koy dégg ñee ñi koy dégg dañ koy dëggal waaye duñ ko weddi ne kii nii taxaw sama soxna si bàyyi la woon nee moom moo koy seede ndeysaan mbokk yooyu seede barke borom Tuubaa ah moom nee kon nag mu ngi noonu man bëgg na sar xolle day am yaa waaw li ngeen di def mooy yaay ji bëgg bëgg naa ko ci na ñëw waaw ñu nee xaadim nee moom it sama soxna waa waajur la sama rakku papa la nee baayam danaan lépp di maye day lépp di maye nee kon ku sañoon boo mënee dara boo mënee dara sa baay fekke ko. ne kii nii. mook sama baay. mook sama baay. ñoo bokk ndey baay ak ndey baay ñoom ñaar ñii. te maaleykum salaam. ne maag baay kii ñoo bokk ndey ak baay. ne bu. soxna Mbacke soo amul woon lii. man dina ma jaaxal man. ne kii muñ na lu rëy. ci sama kër baay. sama kër mag. sama doom yii. lu ne defal nan ma soxna Mbacke mii. barkeb sëriñ fallu bu demul woon dina ma jaaxal yàlla na njabootam barkeel ci barkeb sëriñ tuba kaala gi yàlla na yàqu ci barke sëriñ tuba loo ne def na ko leewat moo tax mu am li nee loolu man mi maa ko wax maag baayam ñoo bokk ndey ak baay yow mii rek yaa war a seede nee sama doom ji moo baax xam na bàjjanam xam nay maamam xam nay ndijaayam xam nay jaartanoon nee yàlla taxawaay bi yàgg yàlla taxawaay bi yàgg ma ne tey bisu wax lu baax la lu baax le nan koy seede bu ko kenn nëbb nee li tax ma jël kàddu gi man Cheikh Mbaye Guèye may leeral lii may leeral lii ci sama kanami mbokk ne waaw yaa bàjjan ne kii maag baayam ñoo bokk ndey sunu ñaari ndey ñoo bokku ndey ak baay mu bëgg bàjjanam lool baayam baayam aram tàmba saako siin ba matt maa ko tax a jaal yoon jàkkaaka tax a téen baayam lu ma am joxe ko amul compte banque ñun ñii di rakam dañuy defal boo nee Abdou Gueye mu ne am loo koy dee téyel dara baayam la nuru soxna Mbacke Gueye mii nag aw yoon la rek day dellu daa muñ da suñ lu bari doomam yi ñëppay baax kenn du bon kii nag daa ñëkkee waaye ñëppay baax Gueye Ndiora ba ci baaj sama sang bii moom it da baayam moo sama yaa ñoo bokk benn baay muy sama sang ak cee kii di sama doom xam nga ne kon def te sotti ku la dara génn ndab li maa ngi sant ñëpp. kon nag sant naa ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm sant sama yaayu bopp jee. sama yaayu bopp jee maa koy sant. di soxna Wàkk Juuf di ajaratu Wàkk Juuf. sama yaay la. sama yaay la. sama xarit la. sama xarita. xool nit. nee xool nit ajaratu Wàkk. ba mu neex la. ba mu neex la Juuf. nga ne ko dama lay yaayoo. nga ne ko dama lay yaayoo. def la comme sama doom. yemoo ci wax ji. yemoo ci wax ji. nga koy doxee. nga koy doxee. di ko waxee. di ko waxee. ko jëfee di ko jëfee. lu mu xewelee ma yëg ko. lu mu xewelee ma yëg ko. du toog ñaari fan te woowu ma. du toog ñaari fan te ma. damay rus sax. damay rus sax. ndax léeg-léegi. ndax léeg-léegi. yitte yi yitte yi. dina ma jàpp. dina ma jàpp ba. ba damay gëj woote. ba damay gëj a waaye fu ma gëjee dégg. waaye fu ma gëjee dégg rek. dina ma woo ma woo. ay doomam. ay doomam. samay rakk. samay rakk. samay xarit. samay xarit. fu nu toll ma ak ñoom. ñu ngi jokkoo loolu kon maa ngi ko ci sant yaa wàkk ne yaa wàkk sama yaay la sama yaay gis naa ko léegi mu ne ma may na ma yaa wàkk waaye nee na fekk na man ma dem bu yàgg man <laughs> nee man fekk na ma dem bu yàgg waaye nag nee bu lëg lekkee alom na ko a coy nag ah, ne <laughs> ne coy baa ngi nii ci digg bi toog ah eh, eh. Eh, ana coy ay co cay coy coy borom bool bi man man man dama yow xam nga man man dama xam naa la nee na moom dafa am xadar waaw ñëpp ko xam ci man ñëpp ko xam ci a nekk ak benn weer kese nee man ku mën a nekk man benn weer kese jàmbaar nga de man sama kër. man sama kër. amul rendez-vous amul rendez-vous. amul heure bu la neex amul heure bu la neex. amul sens interdit déedéet déedéet amul sens interdit. bis bu yàlla sàkk nee bis bu yàlla sàkk. da ngay togg añ bi day tege. bi moom day tege moom. ma nekk fa ma nekk fa ak ma ñàkk a nekk. dépasse bi moom dépasse bi moom. dinaa ko joxe dinaa ko joxe di nga ko togg yow. bu doon sama jëmm ji képp. soxlawu ko de ndax man damay xëy liggéey. waaye ña fay ñëw. waaye ña fay ñëw. di ko añ si mooy man mii rek ñooña laay bañ ñu ñëw duñ fa fekk añ ba nee ku mën a dékku loolu bis bu yàlla sàkk ca ca amul lëndi amul samedi amul dimanche nee na loolu lu yaay wax nee bu sóoree day jël téléphone am ku yéex a ñëw mun la foo toll waaw day woote moom day woote waaw waaw day woote barki Cheikh Ahmadul Xadim day woote billaahi ne loolu ne kon moom maa ngi koy sant di ko gërëm waaw góor sama soxna la jërul ma yàgg ci moom jërul may yàgg ci moom dama koy jaar rek jàll fay jaar rek jàll waaye nag waaye nag sant sama mag di sant sama mag di sëñ Modou Gueye mu baax mee toog ñoo bokk ndey ak ñoo bokk ndey ak baay bëgg dama ko bëgg lool ne lii firndeel bëgg gi mooy. nee sëñ Modou sama doom anamu. Ah, moom mais laa ko tudde nit boo ko bëggee. tudde ko doom. wax ni wax ni man bëgg naa ko ba tudde ko doom. nit ñi war na noo gëm ni loolu dëgg la dëgg la. boo ñu fekkee ñu toog. boo ñu fekkee ñu toog. da jàpp ni. da jàpp ni. sama rakk la sama rakk la. xam nga lu ko waral. xam nga lu ko waral. ak oyefam ak oyefam. soxlawul dara soxlawul dara. lijjanti dara du lijjanti dara. lépp danaan moom lépp danaan. laajal seex laajal seex rek. waxal ak seex waxal ak seex. loolu nag nee loolu nag. ak baaxam ak baaxam. ak woyofam ak woyofam. moo ko def moo ko def. ndax ndax. mooy sama mag mooy sama mag. nekk ci kër gi nekk ci kër gi. kon lépp lu war a def. kon lépp lu war a def. moom la war moom la war. lépp lu man lépp lu man. mu koy def mu ngi koy def. bëgg ma lool nag bëgg ma lool ba ma xam ko. xam naa ci man xam naa ci dara man. sëñ Modou mii bu sañoon àdduna bi adduna bi dafa bëgg ma téye ko ci sama loxo bi yàlla nga ko téye man dama koo xam man ndax dafa ma koy wan ndax dafa ma koy wan ci wax ci wax ci jëf ci lépp xam nga diw xam nga diw ak wool diw ak nuyul diw ak seetil diw ak nee na loolu bëgg lu baax moo koy def man mii maa topp ci moom moo tax moo tax bi ma amee doom ma tudde ko ko ndeysaan ndax jikkoom dafa maa doy man man tuddewuma doom man tuddewuma doom pour ay tur samay doom yëpp samay doom yëpp ñi ma bokkal bàyyi laa ko tudde ndeysaan nay na kon mbokk rek moo am rek am solo di sant di sama ñaari rakk sam Moustapha Gueye sama ndijaay nee Moustapha Gueye sama ndijaaye Ngoma sama doom bàjjen Ngoma sama sama doomi ndijaaye moom it wax na dëgg nee wax na dëgg. maa ko doon jàngal maa ko doon jàngal. waaye bu ngeen bëggee gis ku ndongal bu raw sëriñ waaye bu ngeen bëggee gis donga bu raw ab sëriñam. xool leen ko moom xool ko moom mii. raw de. moo ma raw de. man xaw ma dara nee na. daara ja moom. daara ja moom. nee ba ma jóge ba ma jóge ci daara ja rek laa fàtte la ma jàngoon. nee xamatuma ci dara. ah am na génn kilifa gu doon ngénte de mu daal di génne benn aaya moom mii moom Cheikh ci sama kanam. daal ne aaya bi gone goo ko bindal guy soo ko judd kenn mëntatee mu am wërsëg xanaa ku dul sun borom ma ne ko joxuma ko mu lànk ma daar koy dama koo sàcc capturé ko dama ko capturé sama téléphone laa ne ko tayyi rek pare ci jàpp sama morta ñam xam nga deese buy bindi aaye moom ak bind ay affaires yu ni takkal ay gone kon yaa quelque nee na kon foofu laay daaneel sama kàddu sant naa ñëpp mbooloo mi yëpp xarit yi am di jàmm yi ne ñëpp rek ne assistant mii mu baax mii sama xarit a ngi nii 30 ans 30 ans lan ànd ma nag moom ne ne bu yàgg ne yaa soxna nee na bu yàgg sax ba nu àndee ba léegi gisuma ñu tàqali ko moom assistant mii lu nekk def naa ko waaye dem naa ba xam ne kii moo di dafa jàpp ca bawut ma ànd cee moom nee sama xarit la moom asis lim ma xamal lim ma xamal ci réew mi toll ci réew mii kenn ma ko dëgg la dëgg la Aziz Thiam xoolee rek nee boo ko xoolee su ba ko xoolee su ma ko xoolee rek xam naa li muy wax <laughs> yaa quelque chose <laughs> nee danoo yàgg nee maa ngi koy sant bu baax a baax nee ma Gueye mii sama rakk la dëgg la nee maa ngi koy nuyu baax a baax a baax lu ma xewle kii mooy mu yor sina sinapeur Afrique des na tuuti barke sëñ Tuubaa Mbàkke avion yi ngay dem di jëli yow avion yi barke Seexul xaddi Mbàkke moom ngay jëli dem di jëli image yi di dikkaat yow barke Seexul Xaddim Mbàkke li ngay def da ko da nga koo def ak tranquille ak xam-xam akub yar ak tekk ak tey nee moom mii ax ma sama rakka ma fonkoo lool waxoon naa ko ci bisam ba moom fu ma amee secret mën naa ko moom mii ñaare nag fu may fu may sinebe danaan ne ñaare fu may sinebe danaan yaa ma njëkk a jëndal bii avion yaa ma njëkk a jëndal bii avion ne loolu du dara bii avion du dara sama diggante ak yow ne loolu ëpp tuuti na ci tuuti na ci tuuti na ci nee na li ci kanam nag li ci kanam nag nee na raw luy bët gannaaw basam moom ne gannaaw basam moom éternel moom non éternel moom loolu moom chaque année rek chaque yow takkal say bagage da ngay dem éternel yow ne tant que grand basam mu ngi am yow da ngay dem yow insha allah jërë ngeen jëf